yaa ngi toj tiktok bi yow. suba la ma làmmee mu jag-jagi xaaral ma laalaat bant. Mesdames, Messieurs, tous les artistes qui font le buzz, tous les artistes qu'on avait presque oubliés et tous les artistes qui veulent de la visibilité et de la promotion passent ipto par lui car c'est l'animateur du moment. waxal waay. yow moo ma franchement ça c'est sucré. def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat mu crevasse leen ba ngeen tëdd xëcaa yaa fi ne. du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. Ne le ratez pas. Véritablement, personne n'a le droit de rater parce que c'est le grand rendez-vous, le moment opportun pour tout le monde, amis chers téléspectateurs. Quel plaisir de vous retrouver ici au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Terminons la semaine en beauté, amis chers téléspectateurs. Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement, la première chaîne de télévision privée du Sénégal à Saint-Louis. Ils sont en train de se poser la question, c'est bien Kheucha ou pas? Vous êtes en direct. Je suis ici au niveau de la 2STV à Dakar. Je suis de retour à Dakar rien que pour vous servir. Loolu laa doon wax léegi léegi bàcci li Alaaji Grégoire naan ko bàcci ma ko ma toogee xale yu wéet te bëgguma xale yu wéet su ma toogee def ma émission dañuy janneer ñi naan noo Kheucha lu tax ñëwul Kheucha lu tax bu ñëwul sax nu message lu tax woowuñu loolu lépp di ci am damay ñëw taalaat oto bi yegg si fii ci biir Ndakaaru rien que seex vous servir amis chers téléspectateurs xam ngeen ni ko seen bëggeel ci man yéen ab sàcc la rek te man sama bëggeel policier la te xam ngeen ni policier fu mu jàppee sàcc rek da koy jàpp monote ko takk ko loxom takk ay loxom te ginnaaw rek ni ko ràpp tëj maa leen bëgg yéen bëggu leen ma man maa leen bëgg man mi ngeen xamante ni ba tey nelawaguma barki sëñ Bamba Mbàkke kontaan naa di bëgg bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi di seetaan de l'autre côté euh, foofu nga xamante ni euh, moom moo di euh, à l'étranger en France Italie Belgique Hollande aux États-Unis de l'autre côté en Allemagne au Canada on nous regarde également foofu nga xamante ni moom moo di de l'autre côté foofu ca France en tout cas nous sommes très très très fiers des Sénégalais qui nous regardent un peu partout dans le monde waaye itam tout ce qui nous regarde ici en Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe Cap-Vert ah man Sénégal ku mu dajale rek dama lay fàttaliku pour mën la tudd Malawi yéen itam maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante aussi eh, nga xamante nga xamante ni moom moo di ca Mauritanie ba bii ko Mauritanie wani ba bii ko Mauritanie xam naa ni kontaanati ngeen xale baa ngoogu dikkati na moom lan naan dikkati na ñooy dikkati na ñoo jam bu paaka lalam aram nañu rien pour vous servir yegsi naa ba tey nag sama bëri nelawagul man xam naa ne yéen li ngeen ma jaral moom li ngeen ma jaral kenn jaralu ma ko ci àddina du kenn Grégoire bi ma ne maa ngi Dakar il ma croyait pas dafa ne ma ma envoyé ko sama localisation wan exactement fan laa nekk ma ne ko Gré mu ne ma waaw ne ko xam nga ni Kheucha bu deful 11 13 Sénégal ñii du ñu nekk en bonne humeur parce que médicament la benn médicament la boo xam dañ koy jël dose la le matin pour mën mu mën leen accompagner Laye Ndiaye bu yeewoo balaa muy nekk eh, bala moom cerveau mu mën a fonctionner correctement mën a wax ak madame mën a wax doom ji jaaral nii foog mu seetaan onze treize donc onze treize c'est est devenu un médicament pour les Sénégalais donc bu ñu ko deful rek day xaw a garaaw moo tax xam naa ne bu ma paree nag ci laay nag dem na law nelaw ba ba mais nii nii moom dama leen di bégal ba ngeen bég ma daal di kontaan ay ca ngaay mexee naa la euh, di la siyaare bu baax a baax l'international Mbarak maa ngi lay nuyu euh, di nuyu ki nga xamante moo di Alaaji Bàccili Grégoire mon ami ngi lay siyaare bu baax a baax waaye nu ngeen ni ma sañ sa ngeen waaye lii la la yow xaaral ma dox doxu bandi doxal doxu bandi mais gëré mais gëré xam dama wax du sol yëre wolof parce que euh, ñu bëri dañ naan noo Kheucha du sol yëre wolof et pourtant Kheucha yëre wolof da koo jàpp ba xool tey ni ma simple nii je suis si simple regarde-moi ah sol sama tenue bu doy waar Suisse Gold laal ko maa ngi koy joxe numéro bi léegi ngeen dem ci yéen tamit ay cagré euh, foofa daal di toj dañuy dem sama séance d'étirement tey nag xam naa séance d'étirement bi dama koy tubaabeel rek puisque dama sol yére wolof du ma fi nekk daan bay tay kii tay kii waaye man xam man bu yëf yi tàngee man dootuma mën a retenir sama bopp let's do the show right now bégal gaañ si c'est bon c'est parti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 xëcca xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mën a waaw waaw respect respect à ce garçon il faut terminer la chanson Alaaji Bàcci li lu xew lu tax nga dagg sama waay wi yéen du baay bàyyi mu mu waa Thiès kaay wuy waa Dakar waa Kaolack xam nga ñoom daf leen di lim et j'adore cette partie là ayca maa ngi nuy bu baax a baax Sénégal Jal sango Sangomar fi nga xamante ni fii la euh, raay bi wulee ñaay muy Dakaru ñu ngi leen di bu baax a baax Thiès kaay romb naa ko ce matin maa ngi leen di nuyu sama dëkk boobu nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ma bëgg ba ba gëmewuñ ma waa Thiès maa ngi leen di nuyu Kaolack nangaan kenn demul ngeen des waa Bakel Kaffrine fàttewuma Sédhiou Ziguinchor Matam euh, Kolda waaye itam waa Podor Dagana waaye sama dëkk ba Ndar kontaan naa ci yéen dañ lii lañ naan on est mieux que chez soi démb bi may ñëwee gis naa leen ci diir bu gàtt est-ce que defuma six heures de temps à Saint-Louis mais gis naa bi may yéegee ci seen bi ni ngeen ma accueillir amour bi ngeen am ci man bu ngeen ko def loolu nag damay mer ndax dëkk bu ma dem nit ñi wax dëgg yàlla euh, wan ma seen amour ci ñoom waaye yéen da ngeen ko gën a fësal ndax xam ngeen ni seeni doom laa xam ngeen ni man mii ci yéen laa bokk te kontaan naa ci loolu wax dëgg yàlla yàlla na am fay yàlla yàlla fay waaw fël-fëlaale mais on cerise xam nga moo ko jar kon toog leen ma bëggal leen léegi-léegi bàcci li xoolalal gars yi s'il te plaît ligne bi ah ay ca ci 88 628 14 13 bu ko defee ñu mën a ibbi mu yaatu waxtaan euh, pour terminer véritablement la semaine en beauté bari ngeen ñu war a waxtaan ak man tey euh, ci euh, li nga xam ni moom moo jëm ci CAN bi Cap Vert la ñu am lan la ñu war a xaarandee Cap Cap Verdien yi Grégoire ko dégg mu ngi naan ma ay zouk ay ñoom yooyu noonu boo leen ko tegalee ci biir match bi ñoom da leen di perturber joueurs mais ñun Sénégal bu leen tegalee euh, euh, Benjamin Mar euh, Ritam Balla gi rek sénégalais yi ñoom itam dañuy perturbé wu 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum. jaaree naa la. maa ngi lay delloo Chiar Fall. est-ce que xam nga tu es loin de mes yeux mais près de mes oreilles quoi. nga ni ma. yow da nga xam ni 2 heures ça mais ça te voit. Ah, waay dëgg la ak lan. waaw waaw maa ngi ci 88 point 4 rek du ma la gis mais dama lay déglu. ndax samay écouteurs yi ngi sama nopp. dégg ngeen ma toll jëlee gerte. nee na leen 2S ça s'écoute mais ça se voit il a raison. bu ngeen bëggee déglu ci rajo bi boobu man xam nga ñu bari dañu jàpp ni. non père Mora Mora mais mën nga nekk ci mbedd mi sax takk say yaay ma père El Hadj dimbali leen ci sunu rajo bi ñu tàmbali liggéey ci rajo bi 88 point 4 bi mi ngi dox Eh, man maa la woon bi ngay wax ci détail yu statu Tëngéej bi maa la woowoon auditeur bi la woon di wax ci xam violence yi affaire yooyu. waaw sama xarit nga mais sa émission ñaari yoon laa ko seetaan. nga njëkkee invité Ouzin Keita. <laughs> sama xarit bi ak bi nga invité group booy yooyu te ñuy way miir na. te ñuy way. de best xaw ma nan. booy ah, xale yu xale yi waaw waaw. ñaari émission yi laa mos a toog télé seetaan depuis lors damay takk sama écouteur bu ma amul temps toog télé aussi je t'écoute. ndeysaan ndeysaan ah kontaan naa frère. parce que euh, émission bi franchement dafa neex. macha allah te yaa ngi jàllale ay message top kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax toujours à l'actualité donc neex na quoi. macha allah en tout cas kontaan bu baax yéen ko moom. sincèrement fierté jeunesse bi nga xam nga. ba xam nga euh, say début say début dañ ko gis ak fi nga egg si nii donc il mérite quoi. xam naa ni parce que Marie Ndiaye Marie Ndiaye Fa Demba sama sœur la. ah gis naa xam ngeen fu ngeen jaar. ñoo bokk ndey ak baay kooku sama jigéen la. kooku soo ko nee caat Moussa Fall nee na caat rek dina xam. waaw ayca Marie Ndiaye Fadé ma mbokk mi yaay Lati Diop dégg mbaay jor de loolu démb la tey soog a ñëw. ndaysaan ku baax a ngoogu jigéen ju baax. jigéen ju gëm boppam donc yow bu ma lay gis à travers écran bi nii. ndaysaan fier damay kontaan. macha allah kontaan naa frérot kontaan na ci émission. wallaay ndaysaan kontaan nañu. donc yow jàppal too baax 2022 bi tamit na gaaw na gaaw ndax. xam nga damay ma def fàttali rek. xam lan moo may daaneel ah. waaw damay dox ci mbedd mi dégg ñu naan xësa sañse nga man maa ngi déglu gisuma la mais maa ngi imaginer. soo naan lii laa sol ak lii damay ree quoi ma naan ndeysaan man maa ngi mel ni gumba buy seetaan. Ah, <laughs> tey tamit <laughs> yàlla na ma nañ ma baal na ma ma baal nag. tey tey nag euh, maa ngi sol euh, tissu boo xam ne Swiss Gold la tudd. man boo déggee nga ni yëre olof rek laa daanu xam naa ni boo jamee yëre olof day rafet xale yee ngi bég ñoom ñu ngi toog seen kër kontaan nañu xam naa ni yow boo ko xoolee rediffusion bi ci guddi gi di ko gis yow doo solu yow sol solu solu la yaay sol solu dosé waat sax xaaral ma dosé waale sax bu baax a baax a baax moo nami waaw dëgg neexul tamit yow ajal niveau yi ajal niveau yi kontaan naa yow xoolal xaaral rek yow di nga kontaan ci kattanu yàlla ak baaxam ma jox la ñett ah ñett yan la mer maîtrisé mer kontaan continuer kontaan continuer rang rangale. rang rangale. dëgg la yow rangale rek. nga ni ma. kontaan naa maa ngi lay def Moussa Laye Golf Sud ah. Moussa Laye Golf Sud kii sunu xarit la ngi rek foog ñu koy foog ñu koy ja foog ñu koy jàllale Moussa Laye borom golf. waaw secteur Balla Gaye 2 ayca ayca secteur Balla Gaye ñu ngi lay. kontaanee bu baax a baax frère yow amal jàmm. merci beaucoup merci merci en tout cas am nañu mbégte bu baax a baax ci moom dégg nga ko moom euh, day déglu je vous rappelle que mën ngeen di déglu ak seen téléphone euh, bu fekkee ne da ngeen génn bëgg dem marché quelque part xam nga ñu yónni leen ah mën ngeen jël seen téléphone rek branché def 88.4 et là vous pouvez écouter Kheucha en direct bu ngeen dugg si waate nga xam dama lay daaj ci yoon wi xam nga ngay dox di ree naan yow xisaag bay ree di di dox ci mbedd léeg-léeg ngay dox di laay di dox di ree nit ñi naan waa kii la lay ree fekk xisaag lay daaj da daaj yu def yooyu du bëgg ñun ñëpp ñu dof àndandoo dof foofu toj gere ay ca euh, très rapidement euh, euh, laay boo xoolee sama bëti tay yi <laughs> xam ne war dëgg yàlla te dëgguma ci la waaye ma koy gérer ma koy gérer waa nag bu ngeen ma jekk saa yi gis ci kaw table bi comprendre leen parce que maintenant mën naa jekk saa rek laay nii nii xoolal ni ndeel def nii yéen continuer leen rek yéen nekk leen ci ambiance bi man bu ma nee nii rek nekk leen ci parce que a tout moment mën naa def nii nag dama sonn de lu leen laa leen wax Grégoire dañ dem ci séance météo ma ah xoolal bàcc li moom day enchaîner bàcc li tey dama xaw a kii da ngay comprendre ah ay ca dañ ko jël ba pare 88 628 14 13 salaamaaleykum